lay am da ngay jàng fatiha jàng iza jaa nasrullahi jàng ci deuxième rakaa bi qul huwallahu ahad iza jaa nasrullahi nag rakaa bu nekk da nga koy jàng juróomi yoon qul huwallahu ahad itam nga jàng ko ci rakaa bu nekk juróomi yoon mu nekk naafila boo xam ne alaaji Pape wax nañ ne képp koo xamante ne bii def nga ko. Mhm. yàlla dana la bindal ci ay tiyaaba lu baree baree bari. ba pare sama saar baa ngi mooy saaru ubbeeku bi. izaa jaa nasrullaahi. man ci moom rek man saar bi rek laay topp. mais Pape saar gënu ko. alaaji Pape saar bi rek laay topp. alquran lépp ngëneel la. waaye bii da waaye suuratu nasri bi alaaji Pape dafa am solo. moom rek laay topp. ndax yàlla dafay da ciy wane kàttanam. Mhm. da ciy wane it ndimbalam. Mhm. izaa jaa nasrullaahi wal fatxu. fatxu bi. fatxu bi. voilà fa la mbóot bi nekk. te xam nga fattaaxu daa bokk ci turu yàlla yi. Mm-hmm. boo nee fatxu. boo nee fattaaxu. Mm. turu yàlla la. Ah. boo nee wëhëbu. Uh-huh. turu yàlla la. parce que parce que dégg naa nag. gaa yi moom la ñuy duggee xëlwa mais Pape Isa Dia lépp ci nekk. moom la gaa yi duggee xëlwa soo bëggee ubbeeku. <laughs> wallaahi mi ngi ci Isa Dia nasrullahi. soo bëggee yëkkatiku. Mm. mi ngi ci Isa Dia nasrullahi. Mm-hmm. soo bëggee mbooloo. mi ngi ci izaa jaa nasrullaahi looy wër ci àddina mi ngi ci izaa jaa nasrullaahi mhm. li muy gàtt gàtt alaaji Pape njariñi kese la. kon bu boroom xam-xam yi seggee naafile yi. Mhm. bis bu nekk ñu ne nangam la ñuy naafile ku ko mën nañ ko def. Mhm. parce que Pape weeru koor day weer woo xam ni li li li li charia considéré sunna su weeru koor jotee farata lay doon maanaam boo ko defee da ngay am tiyaabay ku def farata. donte sunna la. donte sunna la. mais tuyaaba bi day foor. mais boo duggee ci weeru koor rek. yi ñu sunnaaloon. ah day day day nekk promo. da ngay fayeeku fayeeku farata. promotion. mi ngi noonu. mooy orange bu dee promotion. fi mu ne naafile yii ngay def. Mhm. ak lépp loo xam ne dañu la naan sunna la. Mhm. dul weeru koor du am garat bi farata am. Mhm. mais bu dee weeru koor màggaayu weer wi tax na lépp lu ñu sunnaal alaaji pap soo ko defee dafay am importance ba dafay àgg ci dooley farata li ngay fayeeku ci farata moom ngay fayeeku ci sunna boo ko defee ci weeru koor macha allah léegi nag bu dee farata nga def nag ñu dubleel la ko fi mu ni lépp loo def te mu nekk farata ñu waroon la caa fay benn bu weeru koor xasee jot boo ko defee fukk lañ lay fay macha allah moo tax yonent bi ne ba ci kiy nelaw mhm. dañ koy bindal ay tiyaaba mhm. kiy jàng alquran dañ koy bindal tiyaaba kiy saraxe dañ koy bindal ay tiyaaba kon naafila yii nga xam ni boroom xam-xam yi ñoom ñoo ko segg bis bu nekk ñu ne nangam mooy naafila bis bi alaaji pap ku ko mën na koy def ndax ay njëriñi kese moo ci nekk même bu dul naafila yi sarax si ngay génne rek benn mbuusu soow juróomi dërëm benn potu potu yelli taare bi ngay jox ku ko soxla rek sax suñu borom daf la koy fay yiw daf la koy dubleel waaw ah, nag pap bàyyil xel ni yàlla dafa wax ci alquran ne bëgg naa kuy joxe lool waaye ki ma gënal ci ñiy joxe mooy kiy joxe lim gën a bëgg ok dégg nga wax bi mhm. wa yut'imuuna taama ala xubbihi yàlla nee na ñiy joxe ñëpp neex nañ ma mhm. mais ki ma gën a neex ci ñiy joxe mooy ki nga xam ni moom lim gën a bëgg mhm. loolu lay may ok xam nga am na koo xam ne pap bu la nee tey suba dinaa la may mbasin jàppal ni bi mu gën a fonk la lay may. mais bëgguñu koo xam ne bu demee bay maye day wër ci armoalam ba mu gën a ñàkk a soxla. ba ca gën a mokk bi gën a saf ndox bi ñu daakaande daakaande daakaande ba mu mel ni sama dooru Abdourahmane yi <laughs> saf ndox saf saabu saf bulo may boobu rek laa bañ. léegi nag booy maye pap <laughs> yàlla dafa bëgg. Mhm. li nga gën a bëgg. gën koo fonk ci li la yàlla jox sooy maye nga maye loolu mooy wa yut'imuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman yàlla waxoon Seydina Aliin ci boobu ngay amee tuyaaba xam nga Seydina Aliin nu mu def Pape Seydina Aliin dafa woor mook soxnaam ak ñaari doom Fatima préparé ndogu mooy soxna na Aliin teg tàndarma ji teg mburu mi teg lépp lu ñuy jëfandikoo ci koor alaaji pap mm-hmm. ñu dem ba war a ndogu war a jël tàndarma pour dog seen koor pour xéewlu li nu teg am ku taxaw ci bunt kër gi ne maa ngi yalwaan lu ma lekk maag sama njaboot man duma la ubbil <laughs> wala ma denc ko bu dee lool rek laa yor pour sama njaboot waaw yaa ngi dégg pap bu dee mbokk nga boo duggsee dama koy dugal ci suufu rondol bi bu dee ko yolwaan rek la damay caabi kër gi karaj karaj karaj man sama mbaax exempté léegi <laughs> léegi pap yalwaankat bi ni dama xiif ku may dimbali te yàlla tax lu ma lekk maak sama njaboot Seydina Alioune xool Fatima Fatima xool Assane ak Ousseynou ñu xoolante ñoom ñëpp ñu ne nañu lem ndoguli ba mu jekk jox ko ko sarax ko ko te yàlla tax ñu continuer ñun soo continuer suñ koor. oustaz xiisa bi am na solo de xam nga lu tax ma wax la lii. Ah. boo ci ñëwaatee rek ça veut dire que dafa am importance bari ki démb rek. Mhm. oustaz Assane mu ngi ñu koy nettali. dëgg la donc tey boo ci ñëwaatee ça veut dire dafa am solo. dëgg la Pape. mu continuer kooram. Mhm. ci deuxième jour. Mhm. beneen yalwaankat ñëwaat ñëwaat encore di wax lam doon wax. alaaji Pape mu continuer waat kooram. si Seydina Ali toog ñetti fan yoo xam ne lekkul naanul saa yu demee bay ndogu am ku taxaw gën ko koo soxla mu jaayanteeg yàlla jox ko ko. Mm-hmm. mujj gi mu xëm pikk crise ay parce que lekkatul te nit kuy dund soxla nga lekk. Mm-hmm. alaaji pap acte bu rafet boobu mu def moo tax yàlla yónni Jibril. ni ko neel Aliyun mook soxnaam ak njabootam duma leen fayee lu dul aljanna. Ah, wa jazaahum bi ma sabaru jannatan wa xariira ko su suukar yeeg ndax da ngaa jabet ajjana direct ngeen jëm xam nga lu tax wa yutimuuna taama yàlla nee na dañoo joxe ñam ala xubbihi ànd ak am ca soxla mooy lañ doon saraxe ñoom ñoo ko gën a bëgg wallaahi ñoo ko gën a soxla bu tax chaque jour booy saraxe wala ngay maye xoolal li nga gën a bëgg yow nga maye ko waaye doo xool loo soxlaatul nga di ko maye Mm-hmm. kon nag pap naafila bàngoog ku ko mën na ko def ndax ay njëriñu kese moo ci nekk. macha allah dinañ ñëw léegi ci importance su laylatul xadr euh, tey euh, ñu ngi koy euh, màggal ci fukki fan yu mujj yi borom xam-xam yi dañu bëgg benn bis wala benn guddi bañ laa ricc ci importance su guddi gi ak jafe gi mu jafe pour ñu natt ko waaye ndokk ba mag ñi fii ci Sénégal ñoom fexe nañu ba régler problème boobu boobule mais balaa ñu ciy wax. ma xool fu téléspectateur téléspectateurs yi toll euh, ci woote bi pour ñoom itam ñu jox leen seen i sukkaru koor euh, ci euh, quartier général u tey bi 88 628 20 20 wala 88 628 65 65 séddale taamu naa ci kudd yu njëkk yi kon continuer leen di woote ma gërëm ñaa xarañ loo moom yónnee na ma léegi nii maag buuba nee na pour maag buuba rek la nag miche wi la ñu yónnee miche wi <laughs> kon moom dina am dina am yool yool wu baax ndax daf ñu yónnee li mu gën a bëgg ñu ngi ko ciy gërëm bu baax 88 628 22 22 na téléphone yi gaaw xam nga lii itam euh, ci la bokk ci émission bi donc faaw rek ñu koy matal en attendant invité bi di euh, yegsi bu ko defee ngeen mën a séddu ci euh, enveloppe yi benn bu nekk ndimbal lay doon pour téléspectateurs yi man nag maa ngi joxe li ma gën a bëgg muy xaalis bàjjo <laughs> Youssou moo mën a way xaalisoo bajo tasaare nga duniyaa <laughs> li nga gën a bëgg nag boo ko dee joxe oustaz wax na ko léegi dangay ngay am